yow rek laay déglu. waxati meex nga may jëndee sa fef boobu kooku xooluma ko xaw ma foo ko jëlee xanaa pàkk ànd nga ko farijee bref maa tooñ sama bopp de toute façon man ak yow jàppal jeex na ok man ak yow c'est fini. léegi déedéet yaay lan mooy déedéet yaay kii juruma man maa ko jur damay bañ nga dem mu foog na man maa la wax dara te yàlla xam na ne waxuma la dara yaa gisal sa bopp yow waxuloo ma kan, ya, dara de ya. sama bët moo ma may gis nga sama tekk ji nga gis wax la nag lépp lu mu lay def ci kër gi rek gis naa kon lii tey jii laa koy réglé mu jeex tey sama secret nekk sama secret biir néeg la ba ci lan siggil nga gis nga jigéen su amoon xel kenn du ko muur xaaju guddi naan ko sëyal waaye am na ci ñenn ci góor ñu ñoo xam ne it na ma yàlla jéggal te ñu baalaale ma sax ci ñu ma ko war a wax ñoom it amuñu xel gis nga Moustapha mi yow yaa koy comprendre limu lay def yépp nag gis nako sama tekki ji nga gis ci kër gi wax la gor lu ta ni jigen su bëggee jur mbaxana rek day nango don dal man fi ma jaar doom do fa jaar li tax ma tamu la bëgg la sama wax bu duggal la ci biir kër gi man xam naa man togg tek sama añ say nopp dom papay mustapha mi jël añ bi puus ma ko ni ma danga maa liggéey ma fóotal ko ay yéreem ba mu set dara desul lu dul ranger mu sànniwaat ma yére yi egg goo foofu teg naa sama diwlin mu yónni ma ma ñëw fekk diwlin di tàkk ba samay dëkkandoo ñoo ko fay xam nga egg goo foofu boole ci nag ma amoon goro bu weex yow am nga chance sa jëkkër bu tàngee tamit sa goro tàngo gis nga boo góorgóorloo rek nga muñ naxante li nga bëgg di ko am yaay booyam gën a la xool ci man nga gën a doon dollee muñ kuñ ne muñal rek boobu fekk ni dangaa dee kenn du fekk nit mu nekk ci lu ko neex mu ko muñ loo ko amul fenn góorgóorlu bu baax nga naxante danga ko indiloon kafe gi pour mu naan ko kafe gi du dellu man mi maa koy naan ndax Moustapha ci man mi la fàqe ko kon su ma naanee kafe gi donte bëgguma ko sax mais yow naa la satisfaire tey bu doon luy lore noonu laa koy naanee ndax lan pour ma am yow sa bonheur ndax yaay booy man maa la bëgg maa la tànn dégg nga li ma wax. gën a la góorgóorlu man bugguma la gis mukk ngay triste dil gën a sangu di gën a sañse di gën a def ba mu baax damaa ragal jigéen boo xam ne loo nekkee sa jëkkër ci biir nekk bu gannee salaamaaleykum xam ko wala nga am ak sa jëkkër problème di ko wili pande man bugguma koy weer jëkkëram say sutura la ak sagalante ku nekk na suturaal moroom ku nekk dolli moroom waaye boo demee yoonu marché sa jëkkër ngay wax suñ la defee nga woo sa yaay xoolam jóg diggante bi ñagas fekk bëgg nga sa jëkkër sa say yàqu doo ko mën a jóg ñu bari nañ ma yàlla baal ci li may bëgg wax jigéen ñu bari ñu ngir dof te xamuñu ko dañoo doyal ci seeni borom kër ndax xamuñu woon nañ leen di téye jëkkër sang la loo mënti jànkonteel sa biir néegu say gasal ba mu xóot nga suul ko te xam ne bis dana ñëw nga reetaan yaay booyam bul wax ak ma sàmm bul wax ma dem mën maay sa yaay maa la jur lépp lu ñu war a faj man dinaa ko faj Yeah. allo co mais buy bi moo dëgër bopp buy bi comme brique pelin wowle mais xoolal jaan ci kaw jaan ci suuf dinaa la tànc booy lu leer laa lay wax si jàmm euh, man la Mia man nga woowoon pour ma ñëw soxarloo tey. Mia. waaw Mia. man la sœur Kia. ah. ngi si jàmm. ça euh, ci kañ nga kon. waa ah, am nga ci loxo yoo jaar ak yooyu. waaw am na ci loxo yu bëri yu ma jaar. ok. mais xam ni ñu def. ngay dem ci bureau bi. waaw madame Fall. nga ne maa leen boole. madame Fall nga jox ko si. mën naa dem léegi waaw demal léegi waaw. merci. waaye léegi jël sama décision ba pare yow moom dama lay maye da ngay sëy <laughs> waaw yaa ngi ree ree nga sa musiba day sëy li nekke neexuma yow Mia yaa ngi toj koñ bi dégg naa ma voyagé ngay sol lu bon di taxawaalu doo toog doo taxaw di dëkk bi di ko toj lépp fekk naa fa ma nekk ak soltu ko yu bon yi ngay sol mel ne doo doo mu jullit yoo xam nga fi nga bokk ah? déedéet xam nga fi nga bokk laay laaj ba xam. déedéet xamoo ko kon du ma doo def li ngay def nii xam nga lu ma bëgg nag nga def sa bopp bi loo xamante ni dina ngay sëyi. nga nag maa yow gis nga yow bu kër gi xawee selaw rek nga commencé def ay kii. Ah, wax nga dëgg. maye fan sëy ma koy maye day dem. yow kuy sëy sax dafay fekk muy bëggante ba dama am far. man maa bëggante indil la. yéen nag bàyyi li ngay def sama xarit nga nag yow <laughs> bàyyi li ay bëggante rek xanaa rek maa bëgg a maye yow. yow yow ngay xool lii ngay fi bokkuma ko kafu ma reetaan ma sama dëgg laa nekk dangay sëyi. ma t'es sérieuse. ma. dangay dem. yow moom eh. li nga nekk dama la cee baax. ma kafoo de. yow yaay kaf yow mi am deux ans ma kafu ma. dangay dem. mi ngi wax naa la ko day dem day sëy. ma bougé wu ma maître si kër gi. ah man ma yaakaar ne da ngay kaf ndekete kafa bougé ma maître sëyu ma. ah loolu eggaguñ fa. da ngay sëyi par force. waaw man waxtaan naa ak sa papa. sa bàjjen léegi laa pare ak moom da ngay dem nag daf ko sa xel waaw force. ma dew ma fenn dew ma fenn. man bëggantewu ma ma fenn. bëggantewu ma kan? waaw dew kan ma fenn. loolu la ngay def bëggantewu ko gën taxawaalu gi nga nekk kan ngay bëggan kenn du la bëgg. yow kay yaay bëgg waaye kenn du la bëgg taxawaalu guddi taxawaalu bëccëg loolu nag moo fi jas sama biir kër. yow li ngay régler seen problème. bàyyi ko. avec ça bu ñu waxee nga ne yow mag nga ci kër. Eh, waxuma ak du ma la wax dara sëyuma fenn boo bëggee koo maye nga. kii moom nag waaw waaw demal muy muy mel alkaati noonu di baaxu di dem de. laaj bi nga dem di nga sëyi. ki li mu nekkee maa ko ci bàyyi kii maa ko reyoo ba mu ëpp la ko. na dem nag ba ba nga xam ko fii sama kër la lu ma neex moo fi am je suis cinq mois. Où en es-tu avec mon projet Au moins, c'est un petit bonjour. Je veux juste savoir où tu en es avec mon projet. sans me prévenir. Seulement, il me faut un peu de temps. Je dois terminer quelque chose. Donc tu me mets au second plan, c'est ça Non, mais tu connais la Kia. Tant ils m'ont mis pression, c'est bien action bon, on va terminer. Je m'en fous de Kia. Quatre jours. La Kia, ngay wax de. Am beut fep, am ay nopp fep. Li ngay wax ni da koy OK. Bon, une semaine. 4 jours, pas plus. la que ça soit la dernière fois nga ñëw suñu kër te waxoo ma Je dama bëgg nga bàyyi ma tout tranquille yow lan la yow lan nga ma toppee J'ai besoin de toi. et eh! que ça soit la dernière fois que tu viens chez moi sans m'aviser tu oses la regarder. Voilà, vous n'êtes pas de ma sœur, c'est comme un camion. gën di. yaay ma wér sunu doom ji. ci loo nekk. ma yegg si jàmm bu baax a baax. yegg si bisimilah. <laughs> yàlla mën naa la. maa ngi nii maa la <laughs> waaye daal su ma la wul woon doo ñëw. yaay maa ngi def rek. ci loo nekk nag yow danaa sëy dama sëy. waaw dëgg yàlla dama laa sëy loo de yaa ngi si a yaa ma la bàyyee nii. ay waay la maa ma la naa sëy kay nu may sooy wootee sax doo sax jël sa temps. <laughs> yaa damay sëy. di sëy doo am jot di waaye namm naa la de. laa xibaar la raw dama laa namm man de ba ma ba ma nee entrée ba ma dugg see sax man gëmewuma ci sama doom bu jigéen bi. ñàkk daal man daal lii mooy sama décision jël naa ko nag ba pare yow xadi dangaa dof wala yow jinne dalaa mbéj ah yow woowoon ba ma ñëw sa kër gi ma yaakaar ne sax danga naan ma naa la trouver solution nga naa ma jël naa sama décision ba pare gis nga xale yi léegi yi kenn du leen tànnal danga leen di bàyyi ñu tànn ko ñu bëgg indil la ne la yaay kii laa bëgg nga may leen ko ca sëyee luñ ca fekk nag muñ ko waaye tànn amatul fenn naan jël xamoo ki mu bëgganteel dama yaakaar ni yoo xam nga ki mu bëgganteel ak ku mu mënti bëgganteel jamonoy takk sagar dafa xeewi ba ñu jëlee gore ba goreel ko suñuy maam yi am jàmm boobu lañu am jàmm ñu nit xale yi lii kenn du leen tànn yow Adamo war naa ànd ak moom Adamo waaw xam nga Adamo comme nag Adamo la bëgg nañ fa dem waxtaan ak moom mu ñëw takk ko yow rama ñaan ba aduna soso bu leg nga jigen bu labati labati leen jabar hmm. ah jigen du labat deug la waaw waye nak am nga droit wo aadama bu mu ñew nga ne ko comme yaang ada miyaana da ngeen a bëggante damaa bëgg nga ñew tak ko bu fekkon aadamoo baax na waaye baaxul est ce que xam nga ni jigen aadamoo doy tuk day naan waaye bàyyi lolu yaay tek sa bët mais mo ko di ko sama wax est ce que xam nga ni goor doxna ba dugg ci bar fekk fa jigen mu mel melokan bu doy war mu jël ko sank ba mu set defar ko tak ko mu nek soxnam est-ce que xam nga lolu anti bu baax di lu rek ya damay ci roy ci yow. <laughs> waye wax waxuma lolu de. yu <laughs> ala ah. sa kol yow yow ni nga daan muro mm, ya yow kol baangi ni nii. ay man yow man tuuti man jeexal nga ma de. yaay dama nee na def ba mu baax ndaw la ay yow tamit nag bàyyi ma def ba mu baax rek. léegi nag xam ko mom rama mom soko moytu. dañuy romb ci mbedd bi di gis seen ak seen affiche nii nii nii nii nii nii. yaay yaay moo bëgg àdduna. da bëgg da ngay solo mu topp lu way yow. li nga sol baax na defal nii bul def nii ba ca tëyëree sax moom fay yóbbu ay tëyëram la may yóbbu de daa yenu àdduna àdduna ci boppam la yem àdduna la def moo tax may def nii rek waaye mbaa yéen a ngi si jàmm baax <laughs> waaw ñu ngi si jàmm moom ñu ngi sant yàlla bu na ah, waaw waaw kon nag jàlloo na na ko <laughs> <laughs> yaa ngi fi maa la déedéet ñoo sikk de xamoo ci dara sax waaw kon alxam ñu ngi si baax baax la lee daal ma ma defaral mm. leen du daal ah. du li may dégg nag loo may sa yaay. dama ne li may dégg nag. yaa ngi xam nga yaay ak doom bu jigéen wax dëgg yàlla ay moroom lañ man yaay sama taaw aw ma la sudde yow rek laa am wala da am beneen yaay. yow ba léegi déggoo li ma wax de bu fekkoon kenn sax ma ko fi seet ma mën a wax yamul ci aadamoo dong lay wax ni yamul ci aadamoo Moustapha daf fii ñëw Moustapha sa doom ci rêve quoi daf yi ñëw Moustapha da Moustapha sa doom mais xaritam la xarit li ma dégg ñu koy wax dama ko xarit waxu mbëggeel la maa ngi doog a comprendre Moustapha moo manqué nag ba mel ni fukk yu ñett ci séddoo ah waaw Moustapha jabaram li muy daj ci moom xale bi de damaa yaakaar ni nii muy sëyee amatul ci àdduna waaw ban xale nga gisati léegi sa jëkkër wàcc nga tànk ndox jox ko mu sangu ba pare nga tàngal daal di fokk ay tànkam di waxtaan ak moom amatul xale bi dana zirik xale bi dana cuuraay xale bi day day bàyyi ba courant coupé sax mu tim ko di ko ëpp ba mu yeewu ah kooku esclave lay dund lii nag lañ naan nit ki di nga sëy ba dee te sa jëkkër du ko gis. man xale bi xaw ma ko dama koy def may romb rek di yaru ba a dee. waaye man mii di gorom xam naa ko xam naa it fa ma ko teg. Moustapha moo ma bett Moustapha man la bëgg a toroxal waaye dina xam ne maa ko jot ci sama biir nampa ko ci sama wen mi Moustapha bala mu maa toroxal ma toroxal ah Moustapha la kon na ko war a nëppal. mbaa yëngal leen ko defal da nga ko war a nëppal de est-ce que xam nga da koy dàq sa biir kër gi. ah dàq sa doom duma ko dàq ma sama kër xadi maa ngi yow petit ba grand lu nekk ci man rek mi ci yow damaa bëgg bu Moustapha ñëwatee ci kër gi nga ni ko eh kaay ba mu toog nga ne ko Moustapha damaa bëgg nga téye sa tànk yom ci sa soxna ndax nag gis naa sa soxna la muy daj xam nga man ñàkk ma fayda te ñàkk xam rek bu ci tegee benn baat ne ko damay woo sa yaay jeena mais sëy yëpp am waaye léegi ba ci man sa ndey. ngi ci jàmm. ah comme que loolu nga wax baax na man de wax dëgg yàlla waxuma la mukk mukk ci àdduna ngay wér sa jëkkër bu la ko dara jaral. yaa amul xam naa ko ci moom. Non, ji ngay noppi baaxul ci yow de il faut ngay wax ak nit. da nga am problème xaalis. kon baax na sama xarit yaay sama seddoo omb kenn ku dul yow ah, sa <laughs> bilaay dañoo duroo. moo jaaxal. incha nga am benn problème. d'accord da nga góorgóorlu gën a yokk góorgóorlu. incha allah bu ma rusloo de. duma la teg gàcce. incha allah li may ma mos a fàtte. Ah, xol maa ngi topp wax ci di wax rek. mayuma la dara nga naan. waaw moo yaay est que jar na ko. moo waaye xaaral jóg dafa tàng. dafa tàng xaaral ma ñëw ñu def lu sedd. daan naan ataay naan ataay après. waaw la a mën a a

lan la kii nga gis ma may jàng may la. waaw yow tamit lu passé passé na baal ma àq wul ma kii yaa dama war a dem plage ngir yaa yow tamit sama yaay mi ngi fi ngir yàlla yow wax. du boobu maa ngi wax la nangu woo faale aadama wu noonu yaa ngi noonu. sama yoon nekku ci ma dem demal man sama yoon ci en tout cas. Kia, tu es ma soeur préférée. Je t'aime. Allez, ciao, ciao. Ciao. Demba Daan joxeel Baye Demba Daan gisoo ne jot nañu waxtaan

waaw ah, benn yow yaa am gëlu. fecckat waaw bi yow mi yaa koy jeexal. nga bëggee lu neex yow. du hmm. madd liggéey rek amul seen kër lañ nekk de. déedéet sóoraale man gauche laa tamit. mais léegi nag la béykat du yor benn tànk. ñu dem. ku dee. yow ngi toj man la.

bul dàq samay xarit ma ne ngeen génn yaay bul dàq samay xarit dootuma fi ñëwati lan moo tax dootu leen fi ñëw yaay bul dàq samay xarit lan moo tax nga leen di dàq lan moo tax nga leen di dàq sa tëjuwaay bi man daal lu ma def rek du safee xam nga lu ma lay yëgal yow mi yaa man duma sa morom est-ce yaa may dégg sa ndey na waaye mel na ni mi ngi fi ndax maa amul loolu dara amul loolu dara sa ndey nekku fi man daal lu ma def du safee ndax fecckat laa fecckat métier la comme fekk métti na comme yëpp samay xarit ñëw bi ma bu ma répété wul fi fan laay répété. dama ne wax ji doy na wala doyul. sa ndey daal fi nekkul nga daal di jël kër gi dëbb ko ba mu mokk. man defuma la bon yaay defuma la bon man la bon. fekk si ma fii man defuma la bon. bis na ki laa la wax mayatuma la ma wax yow miyaa nga teg ci baat est-ce que yaa ngi may dégg. yow sa lu fi sa ndey bàyyi nga surveiller ko ba mu ñëw waaye ñi di rëpp rëpp waxuma la dara sax waaye ñi nga fi indi xaw ma dañuy jël xaw ma duñu jël kenn ki sax 15 la may xëy soxla rek woo ma nga sama ko teg ci muy sama nay suñu borom maa nga soppil ma sama borom kër mu nekk ki nga xam ne ni moom laa sëyaloon moom laa su fekkee ne aussi am na lenn loo xam ne def naa ko ko te yëguma ko maa ngi lay nga leeral ma mën a xam fan laa teg sama tànk yàlla suñu borom maa ngi lay nga mën nga ko am nga ko eh, maa ngi koy ñaan nga defal ma ko ci barke sangu sangoy Seydina am na soppil ma sama boroom kër ba mu nekk ki nga xam ne ni moom laa séyoon ki nga xam ne ni moom laa xamoon te ci yow rek laa ko yaakaar. de xanaa yaasa. Ah, tey damay rëgal yow. Ah. tey dina toj. waa kii yaa oh, lan la. damaa war dem marché. Ah, bu moo tax nga may kókkali. yéen lan moo tax ngeen mel nii. kenn mënul dab seen bànneex.

xamatuma sax quoi faire wallahi je tiens plus du tout comprendre tuma dara je me perds carrément. léegi xoolal xam nga nañu def. Mhm. bàyyi man après dinaa la woowaat comme ça ñu trouver des solutions. waaw d'accord problème je compte sur toi. Eh, nekk calme te nga naan. t'inquiète amul benn problème. allez bisous bye. ok bisous. waaw rafet. c'est normal. gisoon nañu cachet bi nga def noir ma def noir. non mais ci man la. obi lan la da ngay sedd. amoon ah, na tey la. c'est pas boo defee nii. bëri na. bëriwuma. ñu la nam. maa la raw. s'il te plaît tey wéeru ma.

waxtaan. tey la. nga bëgg yow ndawal nga bëgg. eh kisala la. sama cousin. Eh, eh, nga naan ma. sama cousin eh, xanaa sooy cagatu ba sama secteur nga mën a arrêté tuuti. yow me.

Hé, eh, ferme-la, je dis. Yo, je suis ta cousine. Yo, on sort pas ensemble. Pourquoi on est là Mais pourquoi les hommes sont comme ça Vous êtes tous pareils. Toi, je n'ai pas mon mot à dire. Prends-la et mange-la. De toute façon, yo, c'est ma cousine. Dès ça, moi, la aw ma temps perto de perte di essa sama loxo ndax fii sama secteur la kon naa. man bëgg me waxtaan rek. É? ci yow gede nga gindee ma rek la teg ci te la sama xel gat dafa gàtt xëy na am na loo ni def naa te lu indi li yëpp ma lay ñaan bu fekk na am lu xew rek nga wax ma ko ma jéem a rectifier da nga bëgg a dégg dëgg. waaw dëgg Kenapa saya cegat tuh bersama sektor ngemana area itu tuh? Pusaka, itu lah lagi apa? mana gak? Je ne te sens plus. mana? Mana mbeke Si, bagi lo te nekkatul ci man ama demba daam jaxi baay demba daam lépp lu ma daawul def dinaa ko def pour nga bëgg man wax ma rekk man xaw ma kenn ku dul yow laa njëkk xam ci sama àdduna te yow laay mujjee xam bu fekkee ne dafa am lu manqué walla lu tax ñu dëkkee nii wax ma ko man soxlawuma nga bëgg ma man maa la bëggal sama bopp man yow rekk laa am mënuma am lu la ëpp mënuma am lu la sut te yooyu ay sama sang production Banlieue production di seen boo xam ne dafay yëngu lépp loo xam ne da di moo si man moo si gaaw leen ngeen abonné ci chaîne YouTube bi bu ko defee ngeen bës cloche bi di am suñu ay vidéo en exclusivité mbokk yi cinéma bàyyi wu ñu dara lépp loo leen di xaar ni information da ngeen koy am ak Banlieue production publicité pour am visibilité Banlieue production moo ma si doy jokkool ak service commercial wala nga woote deux cent 78 211 08 94 ak Bally Production seen qualité mooy suñu mbég